téléspectateur internet yu syndicalisme tv ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu saa su de seen ànd ñu dooree xibaar yi ak ubbiteefu l'école yi nag jàpp leen ni ki enseignant yi nag war a dem ca la classe ya gannaaw nag ab biir boo xamante ni nañ ko jàpp leen nag ci xibaar yi nag waa COSYDEP di coalition pour la synergie pour le développement de l'éducation publique moom naka damu xamle moo di ab déficit maanaam ñàkkub enseignant boo xamante ni ngi toll ci défense de l'éducation publique Cheikh Mbow nee il faut ñu insister ci li nga xamante réservation bii nga xamante ni ci gab ci éducation plusieurs aspects ko ci quarante cinq mille bu dal dee fekk rek muy àddu nag ci jamono ji nga xamante ci ab benn ndaje a ñu xool nees war def rek ba tollale waaye itam gën a rek njàng ak njàngale ci réew Sénégal nee na itam xam ne nag wàllum table banc ak

fas yéene dem waaye naka lenn ci école naka ci réewum Sénégal ba sax ci tembe noo ngi jafe-jafe ndax ci biir réew boo fa demee am na ci école yu bëri yoo nga xamante ni ndoxu taw yi da nangu boo kenn mënu koo dem jëfandikoo inflation di dund gu seer gi nga xamante ni na ci réewum Sénégal cadre Pastef nag dal dinañu xotti taret nag mesures nga xamante ni Macky Sall dal na koy def cadre yu Pastef nag ni ki démb ñu nekkoon ab conférence de presse nag dal di prononcé ci situation économique bu métti bi nga xamante république Nicéroon ndax jàpp nañu ne yooyu mesure nag amu si dara loo xamante ne am nañu njëriñ waaye itam ab de proposition boo xamante ni si la a teg ngir fexe rek ba yëkkatiwaat koom-koom réewum Sénégal ba ca rek moo di cadre parti boobee nga xamante ni si Ousmane Sonko moo ko daal jiite ñoo ngi rek ci lu gaaw ab suspension jëm ci institution yu ci mel ni nag HCCT nga xamante ni daanaka xaalis la su ko defee nag la nga xamante dépense yoo xamante ni si daanaka mag booy xool koom-koomu réew mi yëpp nag foofu lañ koy lekkee loolee tax nag ñi nga ni si ñoo ko fiy jëlee su ko defee nag koppar yi nga xamante de la culture ay mbokkam ministre de la culture patrimoine historique nag ni ki dimanche ji la nekkoon ca rek jébal njaaram ci famille artiste boobee nga xamante ni moo di Willy Boy Willy Boy gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam ay fan a ngi nii ci gannaaw Aliou Sow nag moo nga woon ca Casamance ngir rek féete Roi d'Oussy édition 2022 communément appelé nag ëmbëbal nag jàppale nag bu ci xibaar ministre de la culture et patrimoine ISRA ñi nga xamante ni moo di njabootu Willy Boy boobule wax ci wàllum politique ak Mimi Touré mi nga xamante ni ci daal dinay xaatim ab communiqué la mu ca wax rek moo di kii di Oumar Youm am na fit am na courage rek li ma war wax Macky Sall mu renoncé ci troisième mandat bi nga xamante nga xamante moo fi nekkoon premier ministre sàkku na rek mu nekk nag ab frustré bu mag faree ci APR nag moom nag nee moo ngi resté constant ci position bi nga xamante moom la jël jëmale ko si Macky Sall la mu rek moo ñu war ko wax sax xel di ko xalaat ndax loolee naka xel mënu koo nangu lu ñu mel naka moo tax mu sàkku rek ci président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di maître Oumar Youm Mimi Touré ne na courage rek bu yeboo mu wax Macky Sall naka troisième mandat bi nga xamante ni moom lay xëy ak léegi mu dal koy teg ci suuf ndax loolee xel mënu ko nangu kon daal mbokk lii la amoon yéene yeggee ci xibaar di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni tegoon bët ak nopp di ñu seetaan waaye itam équipe technique bi ñu àndaloon lu may loolu itam dig beneen yoon beneen jotaay jaa